Liss Ndiago ak xam ne mooy caatu Rebeuss ay Fatim Diop da baax gisuma ko waaye tiit na Liss Ndiago moo jàkkaarloo ñu def na signe de croix caatu Rebeuss moo ñu wan gënaaw arbitre sifflé na Liss Ndiago caatu Rebeuss aca day gaaw da baax bu daje muy jeex caatu Rebeuss Liss Ndiago combat bi mooy combat amateur yi Cheikh Omar combat bi mooy combat amateur yi ay xoolam Alioune Gueye le Thiago Thiatou Rebeuss la ñuy daje ñaari pànk yu daje la ñu ñaari pànk lañ ñoom ñaar le Thiago Thiatou Rebeuss acca nagaaw li sañu wan gannaaw caaturo ba cokaas na gëmu ko xeex ba lis door na jàppante nañ lis daa ko caaturo bas lis a door ci suuf ak main gauche lis a door caaturo bas a ngi déglu waaye mu ngi jël ay coup lii caaturo bas caat jàpp na xañ ko caatu rëbës na ngeen na jàpp xañ ko luy am jey seen sa bés bi rëy na taalibe Siri Gaawaan waaye a way barke alxuraan ñoom ñaar yëpp ay baalee sar rek li segi doore eh? Liss Ndiago naa xeex Cheikh Oumar waaye dafa mel ni xeex bi la privilégié bëre bi la Thiatou Rebeuss opté waaye Liss Ndiago dafa mel ni fi mel ni mu duggee ci bés mooy xaax Liss Ndiago Thiatou Rebeuss Liss a ngi door ba tey Liss a ngi door ba tey Thiatou Rebeuss na réagir maa mu fayu ndeysaan bare gu bare bu extraordinaire xeexaguñu xeex bu extraordinaire ñoom ñaar eh, eh, naxoon na ko naxoon na ko luy am luy am ñoom ñaar caatu la bés ak Liss luy am waaw ah, Liss Ndiago daan na caatu la bés Liss Ndiago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 du ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari